ci li nga xamné moy projet bi ni projet moñu dajalé won projet bobu def nañ ci djégo bu am solo wayé lañ ci wara a ci na ndax lenn pouvoir bi muy pouvoir exécutif ci mu ya nak muy institution présidentielle ci ak gouvernement bi nga xamné le président muy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

Nous am nak information yo xamné nañu xam ministère des finances xam li xew ministère de l'économie xaw xam xam ministère de l'agriculture ak fenen ak fenen ñu nous lolu yépp euh, ko ci gi nga programme président Diomaye lolu moy lañ leen agenda de transformation du Sénégal ci ñetti patch bu bi vision 2050 ñaareel bi di master plan 2034 ñettel bi di plan quinquennal bi mom lañ leen présenter barki démb ci ñu musul a présenté référentiel ci Sénégal gis nañ fi stratégie de croissance accélérée gis nañ fi SND SND e. gis nañ fi euh, Sénégal émergent plan Sénégal émergent waaye Sénégal musul gis ñu de liggéey ko ni def ko ci lu yaatu ba pare ñeu présenter ko Sénégalais ci ni ta fas continuer phase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 yoy yep pour mu dajé faaw rek li ñuy dëgmal muy élection 17 novembre yi sénégalais jox ñu majorité écrasante awma ci sikki sak nak may déllu di féliciter les militants et les militantes de PASTEF ndax tan yombut mënon nañu tan parti bi tass mënon nañu tan nit ñi gedd waye kenn yëngatuul kenn gënul ci parti bi kenn demul ci rajo di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 un parti politique qui ñoo organisé organiser di financer ko aussi ñuy voter loi ñu voté pour régler définitivement la question du financement public des partis politiques mais même si ñu ko fait, amul benn fait pour financement public des partis politiques mooy tax partis politiques yi am une autonomie Si demoon tey Amérique candidat bu nekk mi ngi des levées de fonds et pourtant amené le financement public waaye loolu mënul doy moo tax Togon a fait. ne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 good nguur gi di tàbb suñu loxo waye gis ngeen fitna yi ñu tégon tax ba jotuñu koo def kon ñu ngi leen gëreum di sant di leen jox rendez-vous ce samedi 19 inshallah la ca des nak les équipes techniques ñu yor finance yi dinañ ko léral ci compte yi compte Orange Money compte Wave yi ak yeneen ak yeneen ba nga xamné contribution yi mën na démarrer dès maintenant